jërë ngeen jëf mbokku euh, téléspectateurs yi ñu am nuñ koy defee mbégte bu nekk àllarba di leen dégtal seen émission euh, bi ngeen xam ne mooy face à Pape Alé tey nag ñu am mbégte dalal fi Habib Sy Habib Sy ñu bëri xam ko bu baax a baax muy jiite parti bi nga xam ne mooy parti de l'espoir et de la modernité nàkkal suñu réew ah hein? yaakaaru réew mi yaakaaru réew mi voilà c'est très important déjà kon émission bi ñu euh, def tey ji émission bu dynamique lañ bëgg parce que waxtaanee ko parce que mom bokkon na ci ñi nekkon ci comité de suivi bi waron top lepp lu jëm ci force Covid 19 euh, bi mille milliards yi saytu ko bu baax a baax mais gis ngeen ne génn na lettre de démission wax ci. lu wala di wax na tuu na du teew ngay natt ci ëkk moom dinañu wax lépp lu ci xew wax ñu tamit ci réew mi fan lañ ci kon euh, Habib si euh, maa ngi lay nuyu jox la kàddu nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi Papa le maa ngi lay nuyu di la balu àq ci weeru koor bi ñu nekk di balu àq Sénégal yépp di leen baal àq mhm. di ñaan yàlla suñu borom nga xam ne moo ñu ko teg muy coronavirus bi yàlla na ko fi jëlee ni mu gën a gaawee mhm. ñëpp mucc ci yépp àdduna bi yépp rawatina Sénégal amin euh, laaj bu njëkk bi mooy bu ñuy wax Habib Sy toujours ñu bëri eh, jaar-jaaru Habib Sy nekkoon nga directeur cabinet bu maître Abdoulaye Wade bu nekkee président mais laata loolu sax defe naa nekkoon nga directeur cabinet bi ci gouvernement euh, de majorité présidentielle élargie bu taw Abdou Diouf wala. tout à fait léegi expliquer ñu jaar-jaaru Habib Sy parce que il faut que mu leer parce que ñu bëri dañuy gis lee peut-être que Habib euh, dafa xaw a timide. Mm-hmm. <laughs> loolu mi ngi ci ci mm-hmm. mais énarque nga. absolument loolu yëpp expliquer expliquer ce cursus. bon dama koy dama koy gàttal rek comme tu dis parce que sama yox de man je suis commissaire aux enquêtes économiques là génne école nationale d'administration et de magistrature après ma ma, maîtrise en droit public fac de droit je euh, suis génnee ba léegi nag def ma 33 ans d'administration. 33 ans oui fanweer Ce que je connais, c'est ko chef de service là, mos départemental départemental contrôle économique régional euh, chef de service direction conseiller technique division importation je ma géré ni ngay wax ma nekk directeur de cabinet Abdoulaye Wade bi mu nekkee ministre d'État ci gouvernement Abdou Diouf mais li am solo mooy man ba may nekk opposition nekk énarque kenn la woon du benn du ñaar Habib Sy dong énarque énarque opposant man dong du benn du ñaar maa ñemee woon di ko def ñu ne dama dof ma ne waaw ku nekk ca la nga dof mm-hmm. moo tax euh, gaa yi di wax ne énarque yi def politique léegi yoral nañ ma àllarba <laughs> parce que li wolof yi wax. mais ñoom ñoom parti au rek la ñuy ànd ak ñoom. oui mais léegi dañ ci ci dañ ciy compter ñi ci nekkul parti au pouvoir dàq nañ leen ku ci mel Ousmane Sonko ak ñeneen ñi. waaw léegi mi ngi changé. wolof yi nee nañ ñetti bukki bu ñu songee gaynde ñoo ko man mhm. waa ne subaana ma bukki ba njëkk a song. waaw man maa njëkk a song. Je ah, suis ma ci euh, après parce que 1974 ma première l'a commencé à opposition alors mu gouvernement jox ma ay ma def dix ans de ministère mais comme ni avant bi ci gouvernement Abdou 1995 1998 man directeur directeur de cabinet je suis directeur de cabinet bi mu président de la république. Je mhm. ne euh, li nga ma dafa parce que fi ma nekk doon liggéey di assumer responsabilité dama doon nekk ak les hommes d'affaires ci xaalis commerce ministre et buntu xaalis yàlla ci mbaaxam euh, dimbale ma ne denk nañ ko alalu réew mi mu lubal ko jafé na légui léegi mosuloo dégg may naa la nga wër sénégal bu mu jeex fi ma jaar yépp nga wax homme d'affaire yima doon ndax abib si mos nañ ko ger mosul am mhm. rax ci doli may def politique te ma fooye suma kaddu ci kàttanu yalla suñu borom subhanahu wa taala lolou bo ma la koy ma la koy wax mooy il faut que ñu xamné li wala fi wax perkal du furi mhm. fa ma nekkoon laa nekk ba légui lama ma góone moon moom gëm ba légui lolu nga xamné mom la def lu mat fan wéri at mënumaa tok ba bisa tay ma diko soppi taggu tagguma sama bopp nag mhm. mais damay wax rek li nga xamné mo moo nekk ci yow mo moo nekk ci man mhm. pour que nit ñi ñu wara xam ëlëk ci biir parce que ñi fi ñëw di expliquer ci li ñu jëm la nga laaj seen jaar-jaar parce que jaar-jaaru nit deesuñu ciy sukkandiku. di dëgëral àtt bi nga xam ne moom nga jëmee ci moom. voilà mm-hmm. li nga wax ni am na solo trop c'est très bien euh, ñu leeral loolu parce que dafa am lu ñu rafle ci réew mi euh, jamono yi mooy jub conviction am ngëm-ngëm dans la durée loolu daf jafe nga dugg ci comité de suivi. mu waroon nekk comité de pilotage wëlbati ku nekk comité de suivi changement ñaari terme yooyu jaaxalu la parce que comité de pilotage lañ njëkkoon la wax. bokk ci kàddu président de la république ñu xëy si di muy comité de suivi mooy topé. Mhm. loolu lu doy waar la. Mhm. waaw euh, gis nga Pape Alé Bay Alé loolu lu doy waar la. Mhm. parce que boo gisee ma anticiper sax lu tax man ma bàyyi. waaw man naa anticiper. mën nga anticiper. Euh, wolof yi dañ naan. Tek gi njëkk bu jubul bu tege bu baaxul mhm. doto am ak tek leew tegati du baax mhm. manam yef yi dafa dembee ci ren ba moy li nga wax legi parce que président Macky Sall mom mo tok wo opposition ñëpp dem wuy ji liko li nga bëgg lepp dañ la ci jappalé ngir li defuñ nga ndax sa jëm mais dañ koy def ngir Sénégal parce que Sénégal mo menacé wu réew mbé pa jax mu wax ak nit ñi ci ngor ak teraanga ne bon léegi sax damay def comité de pilotage manam lepp lu jëm ci coronavirus bi fièvre bi dana def ben comité bo xamné bi mom moy doxal mbir mi nga xamné mang ko ci def opposition danañ ci bok, ndangam ndangam etc. société civile ah ñu tok diko ko déglu yaakaar na la wax dana ko def mi ngi recevoir opposition commencé je crois le 24 mars. 1er mm-hmm. avril mu jël décret dal li sos li mu tuddee force Covid. 19. dix neuf dix ne force Covid dix neuf boobu am na ñaari kuréel benn bi mu ne mooy conseil stratégique benn bi mooy comité organique euh, comité technique nee na force Covid boobu mu nga ca biir ministère des finances te moom président de la république moo ko jiite xam nga loolu lu doy waar man xaw ma loolu lan la ci administration mu ne ñi nga xam ne ñooy génne xel yi ak xalaat yi jëm président de la de la république te foofu dugalu ci bén opposition dugalu ci force vive de la nation mom dong ak ministre am mm-hmm. mu rax ca ne comité technique amna comité technique bobu, ministre bi nga xam ministre des finances moom moo ko te moom mi ko en tant que ministre des finances mooy doxal li nga xalaat li nga xam ne conseil stratégique bi stratégique bi xalaat na ko. Mhm. premier avril. laata nit ñiy toog comité technique sax réunion gut mu ne Mansour Faye yow demal nga defal ma ay commande ceeb dëwlin suukar macaroni te waru ko woon def am na comité technique boo xam ne moom moo war a doxal loolu te ministre des finances moo ko jiite. Mhm. Mansour ne. yéen ñi nga xam ne maa ngi leen laaj ceeb ak dëwlin may naa leen ñaari fan ngeen tontu ma 48 heures ca 48 heures ya ñu tontu ko na nga xam ne moom lañ ko tontoo may jël benn exemple rek bu dee ceeb bi fekk na 2013 ministère du commerce signé de benn arrêté. Mhm. moom mi nga xam ne moom mooy mooy wax njëg yi fan la toll ak nan lañ ko war a jëndee. prix homologué yi waaw. mu ne ceeb bi bi nga xam ne mooy ceeb bi nga xam ne moo gën a fare suuf bi ñuy jox nit ñi actuellement mu ne kilo bi ki nga xam ne moo ko indi jëlee ko ba ci bitim réew ba ci poor bi mhm. bu koy jaay grossiste bi ñeent fukk ak juróom-ñett la koy jaayee ki nga xam ne mooy grossiste bu koy jaay détaillant bi ñeent fukk ak juróom la koy jaayee mhm. Mansour na leen loolu dëgg la waane man maay jënd waane au lieu ngeen buuñaa ma man ministre maa leen di buuñaa moom moo leen di buuñaa moo leen buuñaa xanaa moom dimb yow ngay dimbali askan wi lu ci jar buuñaa ñooñu da leen a buuñaa tax buuñaa boobu nag war na lijjanti fan la jaar mu ne mu ne mu ne au lieu yow grossiste bi yow mi ko jëlee bitim réew ma jëndee la ko euh, euh, ñeent fukk ak euh, ak juróom-ñett daa ko jëndee deux cent quinze muy juróom fukk tegal juróomi dërëm hmm. ñoom ñëpp mu jëndee leen ko loolu ci téeméeri junniy tonnes

ndax lima jendu, jënd dana walau wala du ag wala fama ko bëgg agal ndax dem na la ca ñëk dëng ci man moy mu jël général François Ndiaye un bon militaire bu def jaloré gis nga gambi mo fa dem. ñoom mhm. daje nañ Guinée Bissau maag moom. waaw génné fa yaay jambe et tout ça nek en activité koku doko fab diko duggal ci yu mel mu politique administration et cetera préserver parce que c'est un patrimoine dougal erreur ñu ne déta way yi nga doxal conseil stratégique wara représentant. ku nekk secrétaire général ma nga fa. mu juge parti. waaw mom

ah man ma toog benn bés waa front résistance nationale woo ma ñoom suran mhm. ni ma ay la ñun ñëpp xalaat nañ neew yaa war a dem toogal ñu fa ma donc ah affaire bi doy na waar man tegan maa bay jël keneen ñu ne ma daal ci yow lañu déggoo mane ne ah yow la yow la de moo taxoon Lat Joor des deqale bu deewoo jotee ñu ne ko daw doo gor mhm. ma ne comme samay nawle woolu nañ ma nee nañ naa dem toogal leen fa pexe amatut mais yéen ba ngeen gisee ne loolu yëpp am na te respecté wul moom la mu waxoon te mm. njëlbeen waaw lu tax mënoo leen woon ko gàntal génne loolu yëpp wax ko sénégalais yi waaw xam nga ni mu tëddee li affaire bi tëddee woon la waaw gor ca wax ja comme dafa woote woon jàmmoo mhm. réew mi mbas mi nekk fi kenn talul dara ñu ne lu mën a am tamit nañ ko teg ba ñu paree lii ñu seytu ko ni muy demee bu ñu fi nekkee di wax ñu ne opposition bi dugg na fii génn na fii te nit ñi tal nañ la dul loolu comme woonuñu ñun suñu kàddu tënk nañu même fekkee ne moom tànk kàddoom tënk ko ñun danañ dem fekkee ci li nga xam ne moom lañu ñu woo ñu ne bisimilah ma daal di dem am yaakaar rek am waa yaakaar mm-hmm. ma ne ah nañ dem rek ba may dem tim Euh, ma bu fa xelam ak xalaat boo xam ne bi bëgg a def lu baax pour sama réew moo tax ma dem ak liñ ma wóolu mhm. nga lii ma lay wax lépp bu mhm. fekkoon ne ñoom waxuñu man du ma ci dugg sax da ci sori mais ñi bokk ci commission bi comité bi dégg naa ma non ñoom léegi ñu ngi ko def mbiru politique. béykat ma demba Seck wax na ci. waaw dégg naa euh, nu mu tuddati euh, gis naa am na keneen ku ci bind. weekend bi yëpp koy ñoo yor ñoom ñoom ñoo ciy wax. ñooy man dara ma ci woon wax ba ci sori. mais ah. comme wax nañ ci nag. Ah, il faut nga tontu il faut ma tontu. il faut nga tontu leeral lépp leeral yëpp. alors ñu ñëwee nag réunion bu njëkk bi. ñu commencé et cetera wax fii et cetera nu ñuy liggéeyee ñu indi benn document bo xam dañ ci def les règles de fonctionnement bon bind ko document bi baaxoon na quand même mais mënoon nañ ko defaraat may leen man ci sama expérience bu ndaw bi ma am comme dañ ñoo nommé par décret def ay article nañ def règlement intérieur bo xam bi li dañ koy gëna léral def ay article ñu xam nan la ñu buñ ci joggé bien que bi ngeen terme nu ñuy fonctionner ñu def terme de référence léral yépp comme ça doom benn jafe-jafe foofu lañ commencé parce que Abib Sy moo wax opposition coow li dugal fii Fi, fii et cetera. mais est-ce que président Macky Sall Tayou ko sax moom politiser affaire bi à outrance ba mu leer ko na ko doo leen liggéey li ngeen war a liggéey ci yoon. sama maam dafa ma daan wax bul gëm waane bul wedd mën ma ko weddi même bu ma ko gëmut mën naa am. parce que man man bok bama ma gisee comité bi ni mu tëddee nee naa leen lii werante politique la nar a jur wante jarul narul jëral askan wi dara lu jëm ci wàllu transparence alors bi ñu defee loolu ah ñu bañ demee ba ci réunion bi waaj a jeex bien que xoolaguñu woon budget bi mais yore nañ document budget bi am kenn ci cadre yi koo xam ne wax na ci affaire yu budget après ñoom tout ça ne bon affaire bi daal buñ koy bind tim bu ñu wax ne

ñuy jël avion dem di seeti li nga xam ne moo bi jëm am bitim réew billet avion dafa cher surtout jamono yi ñu toll. et puis fan ngay voyager bu ko defee nit ñi danañ waxati ne ña nga jël avion dem di noosi alors que réew yi dañoo bëri. mën nañu sukkandiku ci ñenn ñoo xam ne mën nañu wax lan moo fa xew. mais suñ consulat yi suñ ambassade yi lu seen liggéey. waaw may leen ñaar ñooñu du ma ci d'accord le général est très intelligent mu ah, Habib si wax na dëgg ma ne ko bu ngeen def ki bi euh communiqué de presse bi la ngeen bind que liñuy ñuy liggéey vola la amul dërëm boo xam ne dañ ko ci jël xaj na nag bu fekkee ne da ngeen dañuy dem mission ku dem mission xanaa da nga ko am loo lekk dañ la fayal li nga xam ne mooy sa néegu hôtel na yem foofu mais ñëw ay indemnité session di ko def fii man du ma ko fekkee tey général bi d'accord ci ak man am na ñoo xam ne yàlla tax mbay wax ànduñu ci ba ma koy wax am na ñuy nguur nguuri naan c'est pas normal am na ñoo xam ne ñii bokkuñ condition di ñëw fii affaire yi et cetera. mais fekk budgétiser nañ ko ba pare. waaw ci projet de budget léegi naa ci projet de budget am na 107 millions. waaw loolu am na.

fen du bee jaaw fen du ah du bee jaaw de yàgg naa koo wax fen du bee jaaw tôt ou day feeñ am na ñoo xam ne ña nga fa nee nañ loolu amoon na mais ñëpp d'accord nañ ne bénévolat ba ma ko tuddee ñi nga xam ne xëy na bëggoon nañ ko sax am na ñoo xam ne dañu ragal ñu toog jàpp seen jàmbur am ñoo xam ne dañuy kaas mais ñu bind ci communauté bi ki ka bi quand même que dañuy def benn bénévolat mais na ma gisee affaire yi doxee foofu ca biir liggéey bi xam nga li ñuy wax magam euh, lëndëm ku ko làmbul tim mu daj boppam mu daj boppam ak fi ma jaar ci administration mënuñ maa ndax ci administration xam naa li ñuy yëkkati fu ñu jëm xam naa lu ñuy wax fu ñu jëm xam naa lu ñuy xalaat fan la ñu jëm foofu mënuma ci am benn sikk sàkk ne mën naa koo xam ah ñu def réunion bi mu jeexee noonu ca suba ga euh, presse bi. génn xaw ci suba xaw ma gënnaaw suba bind. l'observateur moo ko génne woon. ne Habib Sy tous manga nangam nangam ñoo ñoo opposé wu nangam nangam ma ne waaw man lii xaw ma sax nu mu génnee bon vous êtes les journalistes. waaw ils ont le droit de chercher des sources partout. oui dem chercher information. waaw ah, ci ca alxames ja ca topp ñu ñëw ubbi réunion ba. <clears throat>

que ñun ñoo def fuite bi di génne li nga xam ne mi ngi am ci ci ci kii bi. mais comité bu war a saytu transparence lan moo fa war a mën a lëndëm. am kenn ci ñoom koo xam ne kii nag moom li ñëpp ragal a wax. moo koy wax ci kaw mu toj ko dal di ñuy accuser bi mu ko defee nag ma daal di jóg man it dal ci kawam ne ko li nga def war loo koo def. man fi ma jaar administration euh, politique gouvernement etc. man soxla naa dem ay def ay presser. ay presse lan laa koy doyee ci àdduna su ma ko ca réunion bu njëkk ma laa ko njëkk ci ma buuf samay bagage dem sama yoon c'est très clair mm-hmm. ngeen ñëw atmosphère bi xam nga bu ci bérébu liggéey jaratu ko jaratu ko ëpp say sax bu confiance amatul day tas mais loolu dama la bëgg a laaj monsieur Sy foofu comité hmm. bu war a saytu wàllu transparence lan lay lëndëmtoo loolu moo ma jaaxal man ah loolu day moom doy na waar boo xam ne yow yow yaa war a nekk parce que dañ la ci comité bi rapport yi ñuy def président lañ ko war a jox etc etc. et cetera du public du public du public déedéet ah non ah non attends non du public mais sénégalais yi nga xam ne ñoom cotiser pour seen xaalis dugg ci force Covid 19 laaj leen seen xaalis ñu delloo leen ko. du public. le rapport ne sera jamais public. non loolu lañ bind man naa décret ba sax ci def ne bind naa ci man sauf euh, décision du président de la république ñu mën ko rendre public mais ñoom la ñuy liggéey mooy rapport bi du public parce que président rek lañ koy jox. mais bu nekkee off nag rapport c'est public maintenant cour des comptes rapport c'est public. lu tax yéen rapport boo xam ne dafa war a saytu euh, Covid xaalis bu ñu dugal ci Covid 19 du public. loolu la ñu bëgg na ñoom. mais ça ah. looloo fa xew ñu ñëw nag léegi ci li nga xam ne mooy réglement intérieur bi. waaw xam nga yëf yi ay succession la day boo bëgg gisee nit euh, responsable di jël yenn décision yi du ci day yeew rek ne ko nii dafa am li ma la expliqué léegi ay ay fait yoo xam ne mooy toppante ba agsi biñ ñëwee ci règlement intérieur bi fekk man loolu bind ko du dara ci man bind naa ko ci benn benn guddi yónnee leen ko ñoom ñëf bi mu ñëwee général bi daal di koy distribuer ak li nga xam ne ñoom defoon nañ ko yee am ñu jóg non non non nañ jël document bi nga xam ne moom la ñu defoon ndangam ndangam Habib Sy li mu def di yoon sa pati Ndiaye. waaw parce que opposition bi la jógee par opposition. ma jël kat na leen yéen yaa lu leen dal man. bu leen ma xoolee bëtu opposant la wax naa leen ba tey su ma d'accord damay dem sama yoon damaa ñëw pour liggéey li ma am tuuti ci expérience ma indi ko fii ngir ñu jëriñu ko ngir Sénégal ñu nekk ca di coow di coow di coow ba affaire bi xaw ma lu may niroog ma génn di téléphone dégg naa bi ma génnee am benn jigéen ne leen ay la yëwan kayit bi Habib Sy def moo baax nañ liggéey ci loolu ah ma ñëw dugg ci saal bi fekk ñuy liggéey sama kayit may suivre di suivre di suivre di suivre bu ñu ñëw ci fi nga xam ne moom lañu war a jëlee décision yi ma leen comme ñun bokkuñ fu ñu jógee te niñ fi toogee am na ñoo xam ne ñoo ëpp ñi fi ñeneen ñi

mais parce que tout simplement c'est qu'il a la minorité qu'il a la majorité. ñoom xam nañ ma daal affaire bi dañuy wote ma xam na ñii xam naa ne la ma fa commencé di wax ak di def arrangé wu leen bëgguñ lu leer te commission yi ñeent la man mënumaa nekk ci ñeenti commission. Mhm. benn rek xëy na wala ñaar sax laa mën a nekk. bu fekkee ne yeneen commission yi dañuy def seen liggéey yoo xam ne fekkee wu ma ko xaw ma nu mu demee. Mhm. ñuy def rapport ànduma ca.

ma buuf sama bagage dem sama yoon ne leen ci suspend parce que noonu laa mënoon def parce que dañ maa yónni woon yóbbu fa sama bopp bi ma génnee ma waa front expliquer leen li nga xam ne moo xew ah, li ñuy wax fii et cetera nangam nangam. ma leen finalement le front s'est retiré. le front waaw maa ngi leen daal man toogatuma fa bu ngeen amee keneen ku ngeen yóbbu ngeen yóbbu fa. le front a finalement pris la décision de se retirer ba ma ñëwee ma daal di def sama sama lettre. absolument de démission yónnee leen ko ba ñoom bind nañ ma lettre sant ma félicité ma ci li nga xam mom la laa leen fofu ren ma ne ma leen di sant di leen gërëm bu baax ci li nga xam wol nañ ma ba yónnee woon ma fofu yaakaar naa la ma mënoon def naa e léegi nag sénégalais ñom ñoy apprécier. très bien est-ce que foogoo ne unité bi kasewu wuna unité bi amone élan de solidarité. pour yàqu bu yag yàqu parce que ñom ñoko yak bu fekkone ne ci njëlbeen nga moom président de la république la mu la def def comité de pilotage bo xamné ne bu doon benn ci opposition sax mu dugal ko fa. jël société civile dugal non aligné jël pouvoir et cetera dugal ne leen yéen kat dama wax bëgg ngeen wax ma lu ngeen xalaat ci li nan lañ koy doxalé ñu mën comprendre nit ñi dinañ piloter et cetera nañ jënd lii et cetera bu fekké né dañu am xalaat né au lieu ñu jënd ay ceeb ak ki dawlin nañu yónnee nit ñi xaalis ñu def ko. mais mom jubbu bopam wax na la 1er avril la jël décret 1er avril Mansour Faye def li nga xamné mom lay def. loolu nag comme bëgguñ lu leer ah man de mënuma faa toog. mënoo fa toog mais tey jii euh, Sénégal yu bari dañuy wax ne le mutisme de l' opposition jaaxal na leen lu tax ngeen noppi ak li fi xew yëpp ci scandale ci biir Covid 19 bi ci njëndum ceeb beeg lu baree baree bari lan moo waral loolu. waa xam nga euh, loolu Pape Alé. Uh-huh. Euh, ala kulli aal coow li moom fu ñu mën a dem da doon ñëw mais comme dañoo toll ci li nga xam ne njàqare la ak jaaxle. Hmm? Sénégal tal lenen ñu faju ñaan coronavirus bi joggé fi mom mo ñu gënoon yitel mo taxone taxoon def naa opposition ñepp tok ne tek di déglu. mais xamone lañ doon def ci yoon. mais scandale depuis nak depuis nga gis ma démissionné ah, affaire yaa ngi commencé. Mhm. opposition ba ngi surtout tay di wax di dénoncer et cetera te loolu mooy rôle opposition. mais yow mi nga xam journaliste d'investigation nga mosoo nopi <laughs>

déglu naa ko li ma ko li ma ko li li tax mu jël ko lay jéem a expliquer dafa am ñeent yu ko xoj ñeent yoo xam ne mënu ci dara. Mm-hmm. benn bi. Mm-hmm. mooy askan bi pression sociale dañ ko xoj am na ñoo xam ne nitu diine yi moo xam Islam la moo xam chrétien la xoj nañ ko. Mm-hmm. tubaab yi xoj nañ ko.

suukar jëndaguñ ko gisoo dëwlin gisoo macaroni comme loolu lépp dafa teg ci kawam nag te attanu ko moom en tant que président de la république. mais leader loolu leader da ngay am fula déggu. waaw mais attanu ko moo tax mu jallax ñu ko nag léegi. débrouillez-vous les te loolu moo ko arrangé parce que bu ñu continuer confinement bi te amul xaalis mu gën a musiba ci moom mu ne kon ñee nag li ñu def man rendre nañ ma service en tant que président de la république. il faut que nit ñu comprendre loolu hmm. li moko ko arrangé bu ko defee li mu diggoon nit ñi daa leen jox ceeb ak diwlin ak sucre et cetera mu mu mu di ko reculer wa le plus le plus longtemps possible duñ ko gis duñ ko dégg loolu moy situation bi nga xamné ne fi lañ toll mën a c'est ça la vérité te li ñëw après li mo gëna a encore hmm. comme mënut li te lii diis na te lay ñëw a gën a diis ah <laughs> auto sénégalais d'apprécier <laughs> kon eh, maa ngi lay sant le la gërëm bu baax a eh, baax monsieur Habib Sy ñëwoon nga leeral yu am solo nag def ci eh, li nga xam ne mooy seen comité de suivi bi leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëwoon di sant di gërëm mbokku téléspectateurs yi di leen dig daje incha allah àllarba ak beneen gan gis ngeen seen émission face à Pabal dañ ko bëgg a gàtt rek nekk dynamique wax l'essentiel avancé kon ba àllarba ak beneen gan incha allah